noo nga ñaanal Serigne Cheikh Mbackeem Serigne Saliou sunu bunt fa moom yàlla na fi yàgg lool tànn ko wér mbokk jullit yi mbokk taalibe yi kaddu gi genn kàddu rek la woon te mooy fas yéene jëfe njàngaleem sëriñ tubaa ci diggante ab taalibe akub sëriñam te nee na ñetti tomb rek la mooy sax ci jëfe ay ndigalam sax ci wattandiku ay tereem te sax ci di sàkku mbigam loolu nag moo sabab lépp loo xam ne def nanu ko baana wax ko baa nu doxe ko baa sax nu xalaat ko ba loola nuru lu jur safaanu mbégum sëriñ bi noo ngi ko koy tuubal noo ngi tuubal Cheikh Mouhamadul Muntaxa tuub gun seereloo àddina goo xam ne lépp loo xam ne wuute naa ko bëggam rek baa mu wuuteeg luy jur mbégam rek noo ngi koy tuub noo ngi koy tuub noo ngi koy tuub dafa fas yéene yeesal nag doon ay taalibe yu bëgg Sëriñ Tubaa yu gëm Sëriñ Tubaa yu doylo Serigne Touba yu sax ci liggéeyee Serigne Touba Serigne Touba rek lañu ñu ta sunu pas-pas sunu ak Serigne Touba duñ ko kocc dara tay fasiyene wono juyolo ak ndigalu Serigne Touba te juyolo ak sa ndigal mooy firi juyolo ak ndigalu Serigne Touba te dañu dal ab talibé nak ak mata dem moko taxa soxla matuk Serigne bi kon lolo nu boole ak sa jëm ci tedd ji ab talibé itam new katanam moko taxa soxla katanuk Serigne bi. sunu njuumte yi ak sunu nëngte yi moo na tax soxla yërmande sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa moo ni woon lawlal maxaas yi la rax ma bu du woon sunu njuumte yi ak sunu nëngte yi kon yërmande yàlla dana sànku kon Mbàkke noo ngi sàkkuwaat sa yërmande di sàkkuwaat sa njëgal te di la tuubal ci lu nu xam nag ak lu nu xamut ndax nun ay taalibe la nu doon te moom lañ fas yéene doon faw noo ngi lay sant nag bu baax ci joyanti gi ak jubbanti gi ndax sëriñ Saaliwu moo ne woon sa borom de moom saa yu tuddee say ayib dalaa fas yéenee jëggal waaye sa mbokkum sa mbokkum jaam su tuddee say ayib nag dalaa fas yéenee weer te nun day mbàkke jàpp la sunu moroom dan laa jàppe sunu borom te loolu moo dëppoo ak njàngaleem sëriñ Tubaa ci diggante ab taalibe akub sëriñam ne mat nab sëriñ nee na am murit su bëggee jariñu ci ab sëriñam ne mat nab sëriñ day fas ci ab xolam ni moo dox digganteem ak boroomam innal murida isaa araada am na yaxtaxidu anna sayqahu waasitatun baynahu wa bayna rabbihi sëriñ Saaliwu teg ci ni te ko dox sa digganteeg sa borom nag da koy xoole ni sa borom ndax looy am ki sa boroom ki sa loxo lay jaar te jotaay boobu yaa ko tooge ndax mooy jotaayub sëriñ Tuubaa bi te mat ko sëkk kon nag boo tuddee suñu ayib wóor nañu ni ak njëggal képp nga nu yéene akuk defaru kon noo la ciy sant bu baax kon noo lay tuubal lépp lu nu xam ak lu nu xamut tey sant tey ñaan nga yàgg fi lool tànd ko biir képp dara Béthio serigne bejo. assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh yen mbokki julli li yen mbokki wa aduna ma ngi nuyu ñep ay di yital ci Sering bi serigne muntaha general khalif general de mouride di nuyu bu baax te di sante di nuyu it Serigne Cheikh Saliou Mbacke moom mii suñu bunt fa moom ko ñaanal yàgg fi lool te wér euh, kaddu yi day day kàddu ndongo kaddu taalibe goo xam ni euh, amul lu dul Serigne Touba te it bëggul lu dul Serigne Touba te it lu dul Serigne Touba it yitteelu ko kaddu yi nga xam ne nag moom laa yëkkati muy kàddu tuub ki sama diggante. ak xalif general des mourid muy seigne muntaha bashirou mbake di tubal di ci luma xam ak lu xamul di toub ci lepp lo xamanteni euh doxna fi te muy lo xamni kat ak matadi doomu adama la maa ko ci toubal bu baax di ko waxne ne man day ci ndiga rek la aju mom day limako wax rek day serigne ci ñun ndax mo fi togal serigne touba day woy jurit ci ñun lépp loo xam ne doxin la wala waxin wu dëppoowul ak li muy digle maa la muy tere moom day ñoo ko ciy tuubal te di ci tuubal mbooleem umma islamique bi waaye di ci tuubal mbooleem yoonu murit moom daal maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jéggulu te di ko seereel sëriñ Tuubaa ne tuub naa lépp loo xam ne lu ko naqaral ndax yitte bi day du def lenn lu ko naqari maa ngi wax ak nag sama mbokkum taalibe yi nga xam ne maay seenu jëwrin di leen wax ni moom dey li xale fi bëgg rek moom de lu mun nañu moom la bëgg mbaa lu mun nañu moom la bëggul ci loolu lañu fas yéene ne tuubal ko te déglu ndigalam te dégg it li nga xam ne mooy ay tareem ñu moytu ko la nga xam ne mooy ay ndigalam di bëgg bëggam ñu soobu ca maa ngi leen maa maa ngi nuyu ñëpp di santaat bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi